dañoo ñëw dans le cadre de l'animation politique du département ngeen gis ñu ñëw seeti un responsable responsable boo xam na ne xam nañ ko si côté l'ancien maire tey ñun ñëpp ñu décidé ne moom mu décidé ne ne day reste si président Macky Sall rester si choix wu président Macky Sall muy Amadou Ba tey ñu ñëw dooleel ko si biir goxam parce que ku xam yi nekk un responsable du Kër Yëmbal Nord tey loolu yoon la tey ñu ñëw fekk si ko si commune am mu organiser benn événement boo xam ne ne muy lancement wu parrainage donc c' tout à fait normal ñu mobiliser tout le département ñu ñëw dooleel ko wan ko ne képp kuy liggéey le président Macky Sall képp kuy liggéey le candidat Amadou Ba Ibrahima Ndiaye ak tous les jeunes du département ak tous les responsables du département dañuy nekk si ginnaaw tey nag ñu ñëw fekk fi une mobilisation exceptionnelle de Abouli et je tenais vraiment à le féliciter di wax rek ne il faut que ñu jege base abul yi wane na ne tey ne dañoo war a jege base bi moo tax ñu lançons un appel à tous les responsables du département bu ñu bëggee gagner élection yi di ñëw dans ce département il faut que chaque commune les responsables yi fa nekk wàcc sur la base rencontrer les jeunes rencontrer les femmes rencontrer les personnes âgées xool besoin wu population bi ñu mën ci taxaw parce que il faut que une proximité de la population moo ñu mën a may ndam élection yi di ñëw te ñun suñu candidat day porter les réalisations du président Macky te képp ku xam Kër Massar projet 2 bi dugg na fi gis nañ ne Promoville bi dugg na fi gis nañ le pont de Kër Massar war nañu bénéficier aussi si dis stades yi nga xam ne ne président Macky Sall da koy jox Sénégal bi yëpp Kër Massar am nañ ci. récemment gis nañ inauguré nañ gendarmerie bu bees bi am na poste de euh, sapeur pompier boo xam ne ne war nañ ko tabax ci côté Jaxaay donc beaucoup d' infrastructures yoo xam ne ne état du Sénégal accompagne ñun nag lu ñu ko mënee mooy le le président Macky Sall bi nga xam ne ne moom la porté. PSE bi nga xam ne ne candidat Amadou Ba moo koy continuer pour que mun ko continuer il faut que département de Kër Massar marqué empreinte am nu ñuy marqué empreinte bi mooy ñëpp dañuy naan ici c' est l' épicentre de l' opposition élection yi di ñëw war nañu wan askan bi war nañu wan le Sénégal que département de Kër Massar va changer la done un département de plus de deux cent vingt cinq mille électeurs du département à négliger donc ñun nag en tant que des responsables en tant que des jeunes du président dañuy wàcc sillonner les quartiers dañuy wàcc sillonner les communes amatuñu frontière ñëpp dañoo xam Ibrahima Ndiaye à la commune de Diakhaye léegi nag amatuñu frontière on va aller dans tout le département rencontrer les frustrés rencontrer les responsables pour que ñu am une dynamique unitaire boo xam ne ne war nañu mën a may ndam élection yi di ñëw donc looloo waraloon tey suñu tànk fii di féliciter vraiment tous les responsables de la de de yëmbal yëmbal nord ndax gis nañ seen taxawaay mais particulièrement Abouli tey marqué na empreinte biir commune bi marqué ne entre empreinte am biir quartier am te askan bi témoigné nañ ko tey boo fu ñëwee da ngay dégg ñu ne euh, bu ñu amee problème moom da leen taxaw ASC e da leen taxaw famille da leen taxaw donc c'est tout à fait naturel et normal population bi ànd ak moom loolu la ñuy lancer un appel à toute la population euh, de Kër Massar ñu jege seen responsable wàcc sur la base parrainer notre candidat Amadou Ba pour que au soir euh, de l'élection présidentielle de 2024 ñu mën a jox candidat bi victoire éclatante dans ce département te une démarche tey boo xoolee lu ñu organiser responsable yi nekk si commune yëpp dañuy ñëw teew tey gis nga fi léegi-léegi honorable Samba Ndiaye nekk koo xam ne ne icône la biir këm yëmbal noor gis nañ fi lépp lu ñuy def dañuy woo ñëpp dañuy woo les les députés dañuy woo les honorables la ñuy woo jeunes yi woo femmes yi woo ñëpp parce que ñun suñu rôle mooy fédérer le département tey ñun suñu ndam mooy département bi ñëpp ànd doon benn moo tax dañuy lancer encore un appel à l'unité ndax élection présidentielle yi ñu jëm du élection Ibrahima Ndiaye du élection Abouli du élection benn responsable département bi élection wu benn nit la ñuy tànn muy le candidat Amadou Ba pour que ñu mën ko fal nag foog ñu booloo moo tax man sama démarche sama attitude mooy ñu def tout ba département bi ñëpp doon benn parce que bu ñu doonee benn à coup sûr et à cent pour cent dañuy gagner les élections te tamit ñu boole si wàcc sur la base jege askan bi parce que bu ñu soree askan bi ëllëg dina leen soxla pour ñu ñëw taxawuñu mu jafe su ñun moo tax nag li ñuy def nii dañoo gis ne ne yëngatu amul ci département bi ñun ñu jël ces initiatives là ànd seeg jeunes yi ànd seeg femmes yi ànd seeg responsables yi pour que département bi am benn xar kanam bu bees te xar kanam boobu noonu pour mu mën a dox il faut que ñëpp ñëw jàpp si moo tax nous lançons un appel à l'unité départementale loolu rek moo ñu mën a may ndam te man si posture boobu rek laa mën a ne mënu ma nekk si leneen. situation de situation euh, xam nga dama wax ne ne koo xam ne ne dèjà bokkatul si carte gi mënatuñu wax si moom ñun jamono ji lu ñu tal lu ñu tal mooy dañoo am un homme dañoo am un candidat muy Amadou Ba suñu candidat boobu noonu lu ñu tal jamono ji mooy wër la Sénégal wër les commune wër lee département pour que mu mën a am assez de parrainage pour mën a voter parce que dañoo jàpp ne ne koo xam ne ne bokkatul si fii fichier électoral bi bu ñu waxee sax ne réintégré waat ñun dañoo gëm ne ne bokkatul ci fichier électoral koo xam ne ne il n'est plus parce que il est koo xam ne ne mandaté wul nit d'une manière signée mu ñëw dem DGE déposer candidature am kooku mënuñu ko jàpp ne ne te jàpp naa ne ne Sonko c'est le cadet de nos soucis ñun lu ñu tal jamono ji mooy suñu département bi nu ñuy def ba Amadou Ba am ndam lu rëy nu ñuy def ba Abouli mii nga xam ne ne moo nekk si commune de Yëmbal noor am ndam lu rëy donc ñun loolu la ñuy dox pour que ñoom ñu mën a am ndam département bi am ndam pour que Sénégal tamit Amadou Ba mën a am ndam parce que dañoo gëm ne ne Amadou Ba tànk yi mu taxawee nii bu si jugawul avec l' accompagnement du président Macky Sall war nañu mun a am ndam lu rëy parce que continuité PSE la te ñu am nañ ci yaakaar. xam nga président Macky Sall du moom mooy bàyyi. état dafa am fonctionnement dafa am le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire Macky Sall pouvoir am mooy gérer dëkk bi justice dafa am loo xam ne ne mooy gérer ku tooñ ak ku tooñul man Ibrahima Ndiaye mënu ma si décider parce que justice dafa am liggéeyam donc tey le maire a des avec la justice nañu bàyyi justice def liggéeyam souhaité wuñ ko parce que souhaité wuñu kenn kaso. mais nag dëkk bi dafa am yoon donc nañu bàyyi justice def liggéeyam ñun jamono ji lu ñu dal mooy suñu commune suñu département lu ñu def ba suñu candidat am si ndam te loolu moom nañ si xar suñu tànk tubay dina wax ne nag département bi kanam bi dina changé y a une nouvelle révélation qui est là des jeunes gis nañ fi léegi tamit la présence de Ablaye Diop nekk une révélation à Malika te ñëw tamit teew fi wax naa leen léegi on a des jeunes des leaders jeunes qui vont propulser le département en étant près de la population loolu moo ñu mën a may ndam te boo gisee Ablaye Diop nu mu taxawee Malika nga gis Ibrahima Ndiaye nu mu taxawee Jaxaay nga gis Abouli ak ñeneen ak ñeneen ñu taxawee Yëmbal Nord ak ñeneen ñu nekk Yëmbal Sud euh, Kër Massar Sud Kër Massar Nord am nañu yaakaar ne bu ñëpp jàppee si liggéey bi ku si nekk liggéey basam war nañu mën a am ndam te gëm naa ne sax nañ am ndam incha allah waaw Omar Sow c'est un frère c'est un frère boo xam ne ne dama koy nuyu de passage parce que mu ngi def liggéey bu extraordinaire à à Yëmbal Sud di wax tamit responsable yi fa nekk yëpp nañu wàcc sur la base parce que instant bi ndam li c'est seulement la proximité avec la population gis nañu organiser des événements c'est un membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñun fépp fu ñu taxaw dama koy wax fépp fu ma taxaw damay dooleel responsable yi Omar Sow c'est département dama koy dooleel Abou Lycée un responsable département dama koy dooleel képp ku jug pour jàppale le président Macky Sall dina gis Ibrahima Ndiaye si wetam aw fi problème kenn si département bi parce que kenn musul dégg ne Ibrahima Ndiaye jàppante naa kenn parce que ñun notre démarche c'est de fédérer tout le département parce que président Macky Sall loola soxla suñu candidat Amadou Ba loola soxla di ko féliciter Omar Sow ak ñu fa nekk ñëpp yëmbal sud ñoom Omar Yaya Sow ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ñu ngi wax ñu gën a jàpp gis nañ tamit euh, suñu maman Euh, Maïmouna tamit ñëw na rejoindre parce que c'était une frustrée ñëw na rejoindre on va rendre visite tout le monde dañoo bëgg ñëpp ñëw te tamit di lancer un appel loolu c'est extrêmement important fii si Yeumbeul Nord le maire Daouda Ndiaye place am mooy Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy lancer un appel mu rejoindre abul yi des na ay responsable des nañ mais moom foog mu ñëw parce que quoi qu'on puisse dire c'est un responsable dans ce département ñu ngi koy lancer un appel suñu grand Daouda Ndiaye mu ñëwaat si këram di waxtami tamit responsable yëpp nañ ñibbi seen kër parce que dans l'unité la ñu mën a vraiment gagné loo notre candidat Amadou Ba. waaw xam nga loolu euh, c'est un pouvoir un choix du président Macky Sall ñun xam lu ñu gëm jamono ji nañu wàcc sur le terrain liggéey bu président Macky Sall ñëpp xam nañ ne département de Kër Massar dañ ko war a renforcer parce que un département de deux cent vingt cinq mille électeurs waruñu ko mën a laisser en rade boo jëlee ay département de Saint-Louis yoo xam ne ne y a à peu près cent soixante dix mille am ministre am des DG am cent soixante mille électeurs am trois ministres et cetera département de Kër Massar waruñu ko négliger mais même président Macky Sall bu ko deful ñun dañuy continuer suñu liggéey parce que lu ñu gëm mooy la présence terrain te dañuy liggéeyal notre candidat parce que idéologie la idéologie bi ñu am mooy Amadou Ba moo mën a continuer PSE bi dañ koy jàppale xaaruñu nag leneen donc lépp lu am tamit day renforcer département bi ñu ngi président Macky Sall war na ko mën a dooleel pour que le terrain